li ma la yónni ci kaw suuf gudd gàtt yërmande kese la wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin aalamin nag bàyyiwut góor bàyyiwut jigéen bàyyiwut mag bàyyiwut ndaw bàyyiwut garab yi sax ak doj yi ak rab yi ne ci biiram yi ñu mën a jaxasoon ak yi ñu mënut a jaxasoo kon bàyyiwul kenn du yónnentub aw xeet xeet sàngam du yonentu réew sàngam ci ñépp la ko yàlla yónni boole ko mu mën a joo xam ne ji moom la doon dund ba nañ fi jógee bàyyi ko fi muy wéy am na bis ñu ne ko mushrikiin yi nga xam ne lu nekk teg nañ la ko tey nga ñaan yàlla mu faagaagal leen ñëw ñépp mu ne leen inni lam ub'as la'ana yàlla indiwuma fi ngir may faagaagalaate waaye innama bu'istu rahma yàlla dafa ma fee indi ngir yërëm jàmm waxoon na bés bum dajalee mbooloo mu bari yaa ayyuha nnaasu innama ana rahmatun muhda man mii di wax ak yéen moom yonent moo doon wax du man mii moom yonent bi moo doon wax ne yërmande la ju yàlla may jàmm ni buñ ko xamee ak buñ ko xamut euh, yërmande ji nag buñ ko bëggee tënk ci lu gàtt fekkoon na aw nit defar ay bant tudde ko yàlla di ko jaam yett nañ ay doj tudde ko yàlla di ko jaam booba nit ñi amuñuy xel loo xam ne yaa ko liggéey ci sa loxo muy bant nga seet na nga bëgg mu mel ko nga def ko na di ko reyal ay xar di ko reyal ay gëléem di ko diis sa te buy lakk munu fa jële boppam day lakkaale loolu ak nit a fekkewu wala loo yett ci ay doj bu taw bi ñëwee ba walla ma ñëw mën na koo yóbbaale sayal ko kooku mënulut kenn dara foofu la fekkoon nit ñi lu nekk lu kenn mënut a tudd gannaaw ña ko doon def am na si ñoo xam ne ay bokk lañ dañ leen di suturaal ngir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lu ne def nañ ko nag lu ne def nañ ko laata muy ñëw ak tooñ fees dell adduna bi mbewte ak kenn ku ci nekk nu mu ko soobee rek mu jëfandikoo ko ci digganteem ak jaami yàlla eh, xaq juy dox diggante nit ak mbokkam nitam réer mër ci diggante boobu lañ fi indi yonente bi sallallahu la ko yàlla yónni yonente googu nee naa nit ñëpp la ab julit ak kurul ab julit ñëpp ca buñ ko xamé ak buñ ko xamul mag ak ndaw góor ak jigéen ak yima tuddu tudd yépp jàng mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam aya bobu suñu borom di wax ci sóotu ibrahim ne sidna ibrahim mo doon wax ak yàlla diko ñaan nako rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas faman tabiani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim yàlla li ëpp ci ñima ma jamono dañuy yàq suuf si yàq suuf ku ko bëgg doo jël suuf di dëbb wala nga di ko taal waaye nit mi yàlla indi ci kaw suuf mu nekkal ko fii boo ko yàqee yàq nga suuf si daal di tànn nag ne ko ku ma ci nangoo topp xamal na ci man la bokk ëllëg ku maandu ci man it xamal ne moom yaag mooma noonu lañ doon ñaan yàlla ñaan na yàlla loolu bokk bis Seydina Isa ne yàlla gaa yaa ngi nii in tuazibhum fa innahum ibaadu koo ci teg mbugal mu metti fii jëm àllaaxira xamal ne say jaama waaye soo leen jéggalee nag moo gën moo ma gënal moom laay ñaan damay ñaan nga jéggal leen fa innaka antal azizul hakim bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngee yaari aaya yooyu dafa tuur ay xéewal ba nit ñi xam ko suñu borom yónni jibril ne ko demal ca muhammad sallallahu alayhi wasallam laaj ko ba xam li muy jooy lu doon ba mu ko ci yónni kat moo gënoon a xam li muy jooy jibril aksi yonent bi leeralal ko ko nako da gis ñu ñaana ñe te ñom mom keneen bu ñewat ginaaw jibril del wax lolu suñu borom ndax bamay ñaan mom dañe ummati ummati yalla, waxuma sama bop waye sama xet ñii ma fi fekk ak ñi ma fi fekk ñepp yalla nga leen yiram jibril dem wax ko sunu borom mu ne ko soo demee ne ko inna sanurdika fi ummatika wala nasuuk na la wóor ne lu ma wax danaa ko def ëllëg ku ci nangoo topp ci sa gannaaw du gis lu koy naqare ëllëg moom yonent bi saa sallam moo ne yonent bu nekk buy ñaan yàlla tegal ko la muy ñaan ci kanamam am na si ñoo xam nag dañoo lu lu ne lu ne bërxër rek ñu daal di ñaan yàlla lu ne ñokket jóg rek ñu ñaan yàlla nee na nag moom li war a ñaan lépp yàlla daf koy denc ba ëllëg mu tinul ko xeetam bii xeet wi nag nee naa nag mooy doomu aadama yi rawati ca nag ñi nga xam ne nangul nañ ko waaye ñi ci nanguwut du ca xool kenn di ko xool bët bu dul bëtub ne moom li mu war a ñaan lépp day bàyyi ba ëllëg ba ñëpp ne ci ay tànk-tànk mu ñaan yàlla mu yërëm leen euh, dal ne nag ñaan googu nak ka ca gën a sañ a yaakaar mooy koo xam ne na ba faafu limale bopam ci xeetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te ku ci limale sa bop da ngay fexe ba do bokkala yàlla ci dar ci wax ci jëf ak ci pass pass yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yërmande ci ko yàlla wacce ci kaw suuf feñ na sax ba ci ay nonam yi gënon na xex amna bis ñu ne ko in kaana hada huwa alxaq min indika fa amtir alayna xajaratan min alsama aw itina bi adabin alim lii ngay wax su fekke non la waye waaye tawali xal wala bok nga tek ñu lo xamne kenn du ko mëna tek yàlla ne ko li ñi wax ni dañoo xamul rek waye li feek yaangi ngi fi feeg adduna yu dox mi dina tuddu yàlla duutu mbugal kenn lam non noonu teggaay duutu ko ci tek kenn duutu wàcce ay xal duutu wàcce ab taw duutu wàcce ngelaw luy ray nit wa ma kaana allahu li yuadibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu muadibahum wa hum yastaghfiruun ku ci dellu gannaaw rek ne tuub na yàlla jégal ko kon boog yërëmane ji wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin saa su nekk day gën a firnde ba ci ay noonam sax yàlla duutu leen teg mbugalum adduna di tukkal adduna li feeg ñu ngi tudd Muhammad te ñaata yoon la ñu koy tudd ñaata yoon la ñuy ci adduna bi ñaata yoon la ñuy liqaam ñaata yoon la ñuy taaya ku noddu liqaamut it ñaata yoon lay taaya ci buy julli tudd yonent bi sallallahu alayhi am na koo xam ne ba muy firi aaya boobu daf ne yàlla soreel jombante naa ko lool yónnent bi la mujj yónni te jamono des ba noppi yàlla di wàcce woon mbugal di ko mbugal di ko mbugal xeetu yónnent bi gannaaw ndax yàlla da ko yónni rahmatan lil alamin wa ni'matan la azaban wa niqma xeet yi jiitu woon nag kenn ku ci nekk lu ne kundung rek mu ne yàlla wan leen sa bopp ndax moom day xam ne wax dëgg la wóor na ko ne su ko waatee wàcc ñu tak ko taxawal li ngay wax du dëgg motax tax mbugal mu wàcc fagaagal ñu bari daa yomboon lool dañuy gis ci mbirum sayidna nuuhin alayhi salaam fa kadabuhu fa anjaynaahu walladina maahu fil fulk wa aghraqna alladhina kadabu bi ayatina innahum kanu xawman amin ku bëgg mucc na yek ñi yek ñan naña bañ ba doomam sax bokk ca wanaa wanaadaa nuuhun ibnahu wa kaana fi maazilin yaa bunayya rkab maanaa ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل عاصم من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله la ca topp topp ca bu yàlla ne suuf la nga am ci suuf li nga am ci ndox génne ko asamaan loo am ci ndox taw ko ndox dara la kon ku andut ak ka yàlla déey rek fitna mën na koo jàpp waaye sayidna nuuxin sayidna huudin alayhi salaam it yàlla nee woon na ko fa anjaynaahu walladina maahu bi rahmatin minna وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين كون سن بغي وقتان كو بغي وقتان يرمنا جي يالا امبل نيت جار لكو جيرنت بي صلى الله عليه وسلم اب جوليت نافق دو داس كودول اب جوليت ت گم يالا يور دو داس waye rabi all yi nga xamne ñom lañu dëkkal yeen ñi di leen jaxaso ak buñ la jàngalee la ci yonent bi defoon ñoom da ngay xam ne yërmande kese la fi ñëwee woon bu dee ñi ma jëkk a wax muy naafiq yi yàlla xamaloon na ko turu naafiq yu bari yoo xam ne bi bu seen mu gis leen lu ëpp wenn yoon te su boobaa seen deret daganoon na naafiq mooy kan mooy njistal ci pas-pas rek ak ci jaamu yàlla gi waaye dara gëmu ko ci mooy koo xam ne day def li jullit yi def di wax li ñuy wax waaye xol ba nag benn tomb gëm yàlla nekku ca yàlla nañ ca musal yonent bi yàlla xamaloon na ko tur yu bari waaye teewul mu doon jëflanteeg ñoom nit ak nit nam leen doon jàjje nag mooy daraan def li ëpp ci ay waareem day jàng aayaat yi nga xam ne day tëkku ab naafiq ñu ci baree bari nag gannaaw bi dellusiwaat nañ ci moom tuub tuubal yàlla seere la ko waaye mënoon naa ne diw mee naa feq la diw mee naa feq la waaye da leen suturaaloon kon yërmande ja day feeñ foofu may leen paso bañ mën a wàññi quoi waaye bu dee ñi nga xam ne yeneen diine lañ yore tam bàyyi ko ci suñu borom ba mu leen fekkee ma diina daf leen fa bàyyi di dund ak ñoom di jëflante ñoom di dem seeni xew ci misaal bu ñu mu seeti leen xew ya àndut ak bokkaale yàlla ngénte wala céetal ci misaal wala jaale ci waaye nag foofu dañ fay seetlu loo xam ne lu yéeme la lam mayoon ñooña mayu woon ñi nga xam ne dañoo dëkk ak moom di ay bokk te nanguwu ñëw dugg ci lislaam ñooña moom da leen di tànn loo ñu dugg ci lislaam wala mu jëflante ko ñoom umirtu an uqaatila annaasa xata yashhadu an laa ilaha illa allah wa yuqimu salaat wa yutu zakat waaye bu dee ñeneen ña moom dafa leen fa bàyyi woon ba mu am ba diine am doole ba am doole mu ne leen léegi nag ku bëgg a dëkk ak man da ngay joxe gis ja muy galak soo dee joxe galak moom kenn du la song bu jóge ci biti jullit ya lay aar ana fuñ mujj yaakaar naa dëkk boobee mu nekkoon di ñoom ak yaakaar noonee yaakaaruma ne kenn ñoo ñooña ma nga fay yeewoo fi mu toll loolu nag mu yërmande ji ko yàlla yónni woon ci nit ñi mu yërëm ko ba nga xam ne ëllëg gi ci biir ñee jóge ci ñoom ay jullit la ñuy mu ne lu jiitu loolu lépp jóge na Makka dem dëkk bu ñuy wax Taif ndax sonaloon nañ ko Makka lool mu yaakaar fa wàllu lool dem ñu teg ko fa lañ ko fay teg ba mu jóge fa ci anam goo xam ne neexu sa nettali ci tar ñaari ñaari doj yu mag yu nekk Makka ne ko su la neexee ci ndigalul borom bi ñu mabbu ci kaw dëkk bii ñu far niw rëdd mu ne yàlla yàlla na nga fi bàyyi ñii ndax ëllëg mën naa am ñu juddoo ci ñoom ñoo xam ne ay jullit la ñuy doon yaakaar naa Taif it kenn du fa doon leneen ab ab jullit fi ñu toll nii ci jamono ci ñu toll yàlla nangu na ñaanam kon ab jëfanteem ak naafiq yi suturaaloon na leen digganteem ak ñi nga xam ne dañoo yor jeneen diine ju yàlla jóge ci yàlla ba muy laata am doole ji lislaam amit da leen faa bàyyi woon di maslaak ñoom ba lislaam am dooleem yilif mu teg leen ay galak ku ko nangoo fay baax na ku ko nanguwut fay nag nga seeti feneen foo jëm waaye dañ lay bàyyi nga dem ci jàmm dem na ba ci alxuraan di wax ak moom naa ko ci maandu gi nga am ku ñëw ci ñooñu ne atte ma ak kii atte ko bu la soobee bu la soobutit nga yebal leen ca fañ yaakaar fa in jaauka faxkum baynahum aw arid anhum wa in turid anhum falan yadurruka shay'a waaye bokk yi bu dee jur gi la bu dee si garab yi moom newoon na xare bu bu méttee méttee métti ba kenn dagg garab bu xare bi méttee métti ba ngeen tere nit ki sawara woo xam ne daf koy ñaan ngir togg ca añ wala ca bu xare bi méttee métti ba ngeen tere ko ndox moo xam ne bu ko naanu dee te kat ñoom lay xareel bu dee ci jur gi nga xam ne ñoom lañu yàlla booleel Shaddad ibn Aws nee na wattu na ñaar yoo xam ne mokkal na lu bari ci wax yonent waaye yooyaa ca raw nee na wattu na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ci moom mu ne loo gis yàlla sàkk ko rek lu mu mën a doon ba ca yàlla noppee noppi naa ñaaw lu rafet lay doon ba faw moo tax su ngeen tiimee ab gàtt di ko di ko lewetal na ngeen rafetal na ngeen koy lewetale ni ngeen ñawal la ngeen koy lewetale te mu gaaw ndax mu gaaw a dee loolu yërmande ju rëy la waaye bu leen ko xorñooñal tàmbali ba ci digg nga bàyyi muy fët-fëti déedéet na ngeen dawal seen loxo tam gaaw te la ngeen koy lewetale ñaw ñaw lool waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam nee na am na jigéen joo xam ne ji euh, borom teraanga la woon baax lool la ko naroon a dugal sawara ba mu tindul ko ko bañ bàyyi ko du yóbbu ko aljanna daa mas jël janaab mooy muus yeew ko joxu ko mu lekk joxu ko mu naan ba am xiif ray ko kon li ñuy wax bëy daa gàtt wàcc jur gi la Euh, muus moom sonal ca la ko yàlla àttee kii nañ ko yóbbu sawara waaye yonent bi sallallahu alayhi xam na ne mën naa doon yàlla yàlla nañu ko yërëm yàlla yërëm mu ne am na koo xam ne yàlla àtte woon na ko ci dundam mu war a dem safaan ba waaye la ko musal moom itam dafa dimbale ci jur googu kenn bàyyi ma yooyu kenn koo xam ne mënul boppam dara ndax day dox ba agsi ci gindub fekk fa dawkat këlbu bu mar ba nga xam ne mënutata noyyi mi ngi àbbaat tiim na te tiim na teen bi waaye mënu dara ci teen bi moo amut munta mënuta jukki mënuta laxu kookee xool ko ba xam ne kii daa soxlam ndox ci njàngale yonent bi la bi mu dindi daal la wam soloon aw bot wut ay xànc takk ko ba mën a duy ndox mu xëccal ko ndox xool ko mu naan ba man mu dem mu dem yàlla ne kii yoon moom jaaroon la ko wàññi mooy mën a mu am ci jur gi te ci njàngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko jëlee kon bokk bu bisam ñëwee nañ xam ne bisu waaja dikk na ñiy wax di bind bu yàgg ba tey di wane ay melokaanam di ca jooy lu ko jar la ndax ñii yoroon ay bant ak i toj di ko jaamu bu dul woon yonent bi feneen lañ jëm ëllëg la ci ëpp wàññiku nañ ci nekkam ba nim dellusiwaatee makka ñëpp far naa ko waaye ñeneen ñi nga xam ne it fekku leen fi ci suñ jamono it léeg-léeg nga wax nga wax ko bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay melokaanam mu sukkandiku ca lañ ko wax dem seeti ko ci alxuraan ak njàngaleem mu jóol ba tukku dugg ci diine kon leen lu ci nekk nañ koy joxe man moo koy rafetal ndax kay wax ma ngay wax dëgg waaye léeg-léeg ñu jox ko koo xam ne nañ ko koy wane mooy tax nit ñi foñ ko te fekk ka koy wax waxe wut nam demee dañuy wax ne cheikh sump di ko macc maccin wa dana tax sump wex te moo ne sump cosaanam wexul yàlla nu dafa dëgg ak topp te ñu ko ba faw te xiir ñu ci tànk yam doon dox ndax yàlla moo ne woon man na leen a gën a gaaw ay jéego waaye xool leen fa doon jaar rek ngeen teg fa seen tànk لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين تلكم لبكو كيرنت بي صلى الله عليه وسلم راوتنا بسبكو في الأندي كين كدب جلد منوكو بني يون ويون ورجار بمانا غيان سنتوا كيسو كمو سيطلو كمو